mais Oumou li nga sañ tey lan la. dama ko cof rek. noirceur d'ébène. gis nga loolu ñun dañuy sangu rek daal di sol yére dem. xaritu internet yi. ragalun dara. <laughs> mais Oumou pànk gi. c'est naturel si toi wala. c'est que problème mooy pànk gi laalu sama catu bakkan. xam ah. naa dafa sotteeku sama bopp bi wàcc. waaye bettu ma ku ne kuy sa baay nga ni binom moom boo mel nii mu jaaxal. Mm, dëgg la dëgg la kay moom bu ñëw day mbëkkee. Mm-hmm, dëgg la ragal ma ko mosuma ko ragal. tey euh, polygame sur scène ngeen daal di ñëw biir Dakar fi nga xam ne moom moo di euh, grand théâtre de Dakar lan nga yëg tey ngay joué Dakar. waaw kontaan alhamdulilah rabil alamin parce que nee nañ garab ci kaw lay fekkante. waaw man mu xamul dara mais su ma demee ba joué ak ñoom euh, Bukunta ñoom Yaxara. c'est une fierté pour moi. pour loolu du sama métier je suis styliste. waaw def samay événement def samay défilé de mode tey su demee bay yéeg ak ñenn ñi sur plateau yàlla la rek. nga wax lu ñu jaaxal tu es styliste te tout le temps sa sa say style vestimentaire fan si dañ koy critiquer mhm. lu waral loolu rôle bi la wala yaa ko di solo noonu. kontaan naa ci question bi bi bi nga ma posé man je m'impose. d'accord damaa def sama 10 de formation li may sol sama port vestimentaire man su ma doyee doy na ma. parce que c'est pas pour rien ma fay sama xaalis dem HCCT jàng def sama étude di sol dara nit naan umul li nga sol rafetul maa jënd sama tissu maa toog ci sama machine ma ko ñamal sama bopp kenn ñawalu ma ko li ma bëgg loolu laa ñaw kon li may sol loolu laa bëgg te damay sol lu épouser sama yaram. mais booy lire commentaire yooyu umu dafa modde trop war na xool ni muy solo ak yooyu looy yëg. daf may neex. Ah, hmm? daf may. plaisir la. kon nit ki li ma sol bàyyi na ko xel bay xam ndax modde na wala rafet na mais li ma modde modde génnul ci armoire kenn doomu ndeyam sama armoire la génn maa moom te duma ko sol ba kenn ma simili bi maa moom. mais temps yi nag yaa ngi yaa ngi def ba mu baax. temps yi moom macha allah. <laughs> fait lii lépp nag maa koy ñaw. man je suis euh, costumière. d'accord en fait ay tenues de scène laa ëpp lu may defar. donc. li ma bëgg sol laay sol maa ngi ni tey li ma sol ne la moo ci nekk en fait loolu laa bëgg sol. mais rôle bi nga xam ne jox nañ la ko biir polygame ñu bëri ne sa ennuyant parce que euh, umu bu génnee rek ñu bëri énervé ñu bëri mer mu ngay mu ngay mu ngay créer boucan fii mu ngay indil problème ma maman sën rôle bi yow nañ nga koy dund. looloo tax ñu may fay gis nga su ma génnee nga énervé looloo tax ñu may fay yow waroo seetaan rek di kontaan da war a mer. après su keneen ñëwee kontaan noonu la ku nekk ak li muy joué ci biir polygame. man loolu laay joué. mos nañu nga romb ci mbedd nit wala wax la lu la metti ci nit saaga ma. lu mu wax. amul benn problème. xool ko mu saaga ma saagawul man man taaw yaayam njëkk ndeyam kenn fekk ma sama atelier saaga ma umu bi mu saaga mooy umu bi nekk polygame loolu mën naa ko tolérer galaawul. alors umi yaay faal nga da dund wala rasta yi lug la. <laughs> ragal léttu. ragal léttu. ragal ci dugal. d' accord alors euh, spectacle bi ngeen di fii ci Grand Théâtre ñu bëri euh, dañuy ñaaw njot ñi du ngeen mën a joué sur scène. parce que mhm. scénario ak sur scène c'est bokkut. est ce que est ce que duñ xaar ay fausse note tey seen seen scène bi. dañ laa am lu ñu ragal. <laughs> Oumou dafa pare de est ce que dañ laa ñëw ñu ragal. yéen da ngeen maa ñu ragal. waaw moom loolu moom ñun def mariage bàjjen mu ne mu biir Thiès ñett suñu bopp. xam ne tey fii dañ koy def pëndax. Mm. ku nekk jël sa bos yóbbu. mais bu loolu weesoo bien vrai que polygame nga siiwee polygame lañ la xàmmee. yan projet la Oumou préparé est-ce que mën nañ ko xaar ci dootu série dootu production. waaw mën na nekk ku ma ci série rek su ma woowee ma ñëw aw ma benn problème. man rek maay defante ci kër gi. yàkkan waxuma d'une manière ci série bi mais yow en tant que comédienne mën nga jot rek daaro comédienne. gis nañ ah, ko ci ci aar surtout Daaro Daaro moom je l'adore su ma jotee keneen dinaa jox peut être mën naa jotee ak parce que xam naa yow loolu ngay xaar mais du ma jotee kenn doo jotee kenn jotee ah? man waaw man su ma tooñee sax ba ñëpp xam ne tooñ naa dama naan diw daa mer ngaa ma la moom ma doon kaf rek léegi lu tax artistes yi di jotee di am problème seen biir yéen du ngeen def médiation jamais gis nañ fi ay artistes yoo xam ne duñ dañuy am muy exploser sur la toile nit ñi di ci wax te yéen artistes kenn du jóg def ci ay médiation lu waral loolu. li nga ma posé nii surtout na sama judd ah, ah, man en fait dawuma fait c'est pas moi. exactement yow noonu nga mel. non non melu ma ma la vie réelle mel non pankuma. <laughs> doo defante aussi man de dama lay ragal su ma lay xool nii damay ragal parce que dama naan kii dafa pank. rôle rek. rôle <laughs> maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah, di leen wax dal leen ak jàmm day euh, si euh, muy euh, waa polygame polygame sur donc ñu leen di wax leen ak jàmm. mais li nga sañse la la décorté li ma de. non non maanaam pour première dugg bi la quoi. waaw parce que xam nga premier ngénte bi ñëwagul. avant ngénte bi am na yeneen. donc moo tax ñu def ko nii rek. d'accord yi ay réunion yeeg yaa ma gën a xam. Uh-huh. waaw ak tey mu nekk polygame la mhm. xam ràññee la mhm. uh, lan ngeen yëg lan ngay xanaa kontaan rek kontaan rek vraiment parce que man moom comme lu ma li ma koy waxee rek chaque instant man fu ma taxaw waa Saint-Louis laay wax. te man damaa kontaan ci waa Saint-Louis parce que vraiment bi ma leen woowee dan maa wuy si ba ma xam ne waa Ndar wuy si nan ma donc man su ma dee remercier waa Saint-Louis laay remercier di remercier aussi ñëpp ah, mais particulièrement waa Saint-Louis di leen wax ni leen gis naa seen taxawaay ci bés bi parce que tuutalu leen ko benn yoon tey rusloo woo leen ma donc voilà mi ngi donc mën nañ ne di seen rek lañ la ràññee ci série bi mën nañ ne polygame moom nga mujjee def foofee ci diwaan Thiès euh, donc lan moo ba nga dugg ci aar ak sa relation dëgg la waaw en fait man am na def naa yeneen production yu bokkul ak euh, polygame oh. mais euh, production yi ëpp yi may def c'est waa Séné ñoo koy def muy waa MAP waa maison africaine de production parce que am na benn série bu jeex récemment muy alal donc maa ngi ci def naa aussi ay ramadan yu ma doon def Euh, am na beneen série bu doon daw sunu yëf mu tudd naqar donc man ma nekkoon foofu actrice principale bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni def naa ko. mais dañu gis ne polygame moom moo lay gën xam nga loolu day am li naan aar du ëmb day wasin parce que nit mën nga yàgg fenn doo fa am mais da def par exemple benn rôle bu ndaw nga xeb ko yàlla def ni si rôle boobu ngay tàkkee te macha allah nag rëccu ma benn yoon li ma duggee maison africaine de production. bi ñu la wooyee proposé le rôle que tamit euh, fekk nit ak famille nit ak njabootam jabaram ñu nekk ci moment boo xam ne lépp dafa stable mhm. bel ñëw daal di ruube lépp ba ci fàtt ne ni sa wujju bett ci doomam ba li nga xam ne moom di traumatisme daal di ko tegal loolu en tant que jigéen je me suis sentie mal parce que jigéen bu nekk ñaanoo yàlla ñëw maanaam fekk sa morom fondé foyer nga ñëw yàq ko mais xam nga rôle rek la donc dañ nu jox yaakaar naa ne xëy na au début parce que nit ñi dañ doon wax bel mi bu leen forcé bel bu leen forcé bel mais à la fin bi ñu demee ba découvrir kan mooy bel gaañ dañoo accepté mais amoon naa lu ma métti trop surtout période bi Fati ne ñàkkee doomam amoon naa lu ma métti trop mais nag comme ni koy waxee rôle la rek donc dañ koy assurer rek yaa ma a laissé. Je ne savais avec aucun plaisir gis na nga topp ni namoon naa la bu baax waaye tamit dina def si suñu awa yaay fàttali waa bi ñu ko remercié gis nañu commentaire ba léegi bel day nga xam ne moom moo di polygame ndax xam nañ ko fi sax demuñu baal dëgg la xam nga mooy li ma la wax au début gars ñi dañu bañoon ndax dañ ne bu leen yàq couple bu ak Fatou Kiné mais tey gars ñi dañoo nangu au contraire tey Fatou Kiné la xas di wax on réclame le bonheur de Belle par exemple commentaire yi boo ci duggee on réclame le bonheur de Belle rek ngay gis donc nga xam ne sénégalais dafa sentimental te bëggul gis ku ni néewal doole donc loolu moo tax instant bi ma ni mooy li may wax rek xëy na rôle bi assuré naa ko quoi. ani xam nga en tant que artiste doo yëg dara mais en tant que la personne saa fait mal quoi parce que euh, tam nit dëmm dafa nekk loo xamante ni c'est quelque chose euh, de fort donc yaakaar naa nit kenn euh, jàkkaarloog sa moroomu jullit wala jàkkaarloog sa moroomu nit naan ko dëmm nga loolu moom non non loolu beneen affaire la lool beneen affaire la même boo dee jouer sax danga koy sentir ñu gis ne loolu nag dafa am solo lool muy message bu bu am solo bu ngeen lancé foofu société Sénégal euh, tey dañoo gis ne ñun ñi bu wàllu budget dañuy tamante dëmm waxante lu ñaaw ani ban message ngay lancé. waaw xanaa di wax ni ko rek góor jaru ko ko man je me dis que ni euh, le bonheur de la femme passe avant tout. góor jarul yenn yi donc ay tamante dëmm ay soodante ay defa ay affaires yu bon jaru ko quoi parce que tey yow tey bu la yàqee wala dara nga yàq sa moroomu jigéen bu góor ki day dem xooli ji leneen da leen fi bàyyi yéen ñaar ñëpp dem xooli ji leneen donc nit ki jëkkal bëgg sa bopp ba pare m quoi ba pare boo bëggee sa bopp yow leneen doo ko xalaat quoi te li may wax mooy jigéen euh, maanaam waroo nan lañ koy waxee sax jigéen da nga war a gëm sa bopp gëm sa bopp boo nekkee aaw am yeneen ñetti wujj jàppal ne yaay aaw ba ñeenteel donc ñeneen ñi jàmm rek ngay séq ak ñoom métier boobu nan euh, waaw xam nga aar yombul ndax euh, avant may egg si euh, si maison africaine de production donc am na ay quelques difficultés yoo xamante ni am naa ko mais sant yàlla tey parce que tey bi ma egg si maison africaine de production yaakaar naa ne lépp lu ma naqadi woon neex na ma. donc damay wax alhamdulilah. yaa ngi bu baax macha allah. ñu ñëw ci xam ne dafa tukkal jamono di alal. nga boo xam ne c'est très sensible. mu yi nga xam ne dafay métti ay sam-sam daal. dëgg la dëgg la dundee alal déjà. non xam nga alal rôle bi ma fa def c'est diamétralement opposé ak euh, rôle lu Belle bu polygame. parce que alal dañ fa indi benn jigéen boo xamante ne dafa wow bët. Mhm. benn jigéen boo xamante ne dara safu ko donc loolu la ñu indi pour wane ne rek ñun on est des artistes rôle bu ñu jox dañ koy assurer donc voilà. mu nekkaat thème de la société yàq na réew mi alal euh, sëy yu tas moo ko tas alal famille bu détruire moom di yàq réew mi gis ngeen ci wécc rôle am solo ah, maanaam série boobu boo koy seetaan ak yow lan ngay yëg. non série boobu bu ma koy seetaan damay kontaan. d'accord parce que muy côté technique. Mm-hmm. Euh, di côté si côté artist yi lépp dañ ko assuré donc macha allah te thème yi nga xamante ni moom la ñuy développé foofu muy alal donc yaakaar naa ni alal dafa ñëw relation bu mu fekk da koy yàq que ce soit muy yaay doom sax alal mën na fa dugg alal dafa sax ci xol donc di ñaan yàlla rek bu leen alal fëkk alal bu mu leen booleeg seen benn nit allahuma amin merci beaucoup conflit entre filles c'est-à-dire non vraiment man ñëpp laa seqal jàmm ñëpp laa merci beaucoup lay nuyu euh, polygame nga nekk di jouer doon actrice parce que mën nañ xaar nga dem ci yeneen label lii dafa jouer waaw si mën naa dem kay bu ñu ma woowee fekk ma disponible damay dem jouer d'accord euh, diggante artiste ak ak ak scénariste mm. ak producteur mm. li ñuy teg tuuma ci seen kaw bari na mm. euh, est-ce que jot nga dund lu mel ni promotion Canal non <laughs> non dund ma ko. mosoo dund ay pro ay ay proposition indécente. non non mosoo ko dund non mosuma koo dund. parce dañuy wax seen talent yéen ñi doog a ñëw ci milieu bi. Mhm. proposition di ñëw. Ah, man de loolu moom vraiment mosuma koo dund. Mm. ndax ni ñu nekkal dañoo jàppee comme doom yi ñu jóg. Mhm. man moom loolu moom mosuma koo dund jaar naa nekk naa mannequin nekk naa artiste comédien mais loolu moom mosuma koo mosuma koo dund wax dëgg yàlla peut-être nag ci kanam yi la. est-ce que l'art paye bien ñu leen fay bu baax. ah waaw waaw. Mm. très bien. ñun boog polygame très bien mosuñ ñoo amel un franc. digg yàlla. d' accord euh, récemment coow amoon na si la toile ñu wax que ni son excellence dafa ñëw Thiès may artistes yi 30 millions coow jub ko nag ñu ne artistes yi ñoo ko lekk yow étant comé comédienne une naka nga gisee loolu. ah man de loolu maa ngi koy doog a dégg. waaye yéen ndax ma laaj mu ne ma yaa ngi doog a dégg loolu. ah man de yëgu ma ko woon yëgu ma ko de maa ngi koy doog a dégg. léegi ko waa ah lu ma yëgul lu ma ciy wax. am nga ci wax. ah aw ma ci waal ndax maa ngi koy doog a yëg bu ma dugal yow tamit. mais dañu koo jiñ àcc soleil levant ñu ne ngañ moo ko lekk ñu ne saaneex. soleil levant waaw. waaw man nekkuma soleil levant man maa ngi polygame. yaa ngi polygame waaw d'accord d'accord c'est bon. léegi yéen lu tax ngeen ñëw rek nangu artiste soleil levant yi ñëw nekk polygame parce que boo xoolee léegi soleil levant sax defatul buzz yéen a yéen a yor buzz bi yéen yéen waa polygame. aw ma ci réponse. aw ma ci réponse yow am nga jëkkër. non non amu ko loo xaar. Ah? ñaanal leen ma rek ñu ñaanal. Ah, merci beaucoup Awa. merci Awa. vraiment ils nous ouvrent leur porte pour que ñu def donc c'est une collaboration qu'on a fait euh, dans un espace de 20 jours. Euh, ku ne xam na ni Grand Théâtre souvent quand tu organises il faut six mois et quelques ou bien trois mois de d'organisation c'est dans une période de 20 jours lañ leen xalaat mais vraiment on peut le faire. ñu ñëw def fi tey ngeen tëddee njëriñ. d'accord Polygame ban suite lay am comme def ngeen spectacle fii ci Grand Théâtre lan la ñu xaaral. Polygame je l'appelle la série à l'infini l' essentiel c' est que en fait toujours ñu ngi ci dans un cadre professionnel ñu ngi gën a yokk xalaat yi on est aussi open on est ouvert boo xoolee tey jii ñi nga gis ci biir ngénte li am nañu acteurs yu bari gisa gonen ci dans la dans la série euh, ce qui veut dire que ni ñun acteur bu ñu gis rek nga am benn talent dañ lay intégrer dans la série pour gën a mën a continuer série bi parce que vraiment euh, Polygame aujourd'hui mi ngi ci épisode 771 donc dans deux dans une période de 16 mois de de de production donc loolu lu bees la dans les landerneaux du cinéma donc euh, déclic la dans le cinéma sénégalais donc on compte continuer la série ba lépp lu mu jar euh, ñu ñu def lan ngay tontu borom xam-xam yu yëngatu ci li ngeen yëngu di wax que ni euh, li ngeen def si ay épisode mu bëri mën na rey cinématographie mhm. lan ngay tontu ci loolu moi je dis tout à fait que c'est euh, ils ont tort man ci sama xalaat Euh, parce que je jàpp naa bu fekkee ni ki jàngi école day xëy du lundi au vendredi dem jàngi école ki dem bureau lundi vendredi muy dem bureau je pense que pour les acteurs qui sont dans le domaine du cinéma ils peuvent créer leur propre domaine tout simplement euh, de travail parce que le cinéma aujourd'hui c'est une entreprise c'est bien possible du lundi au vendredi ngay xëy dem tourner heure wàcc nga wàcc à la fin du mois nga fayeeku les artistes doivent être te loolu moo am polygame lundi ba vendredi les acteurs tournent à la fin du mois les acteurs sont bancarisés. dañuy jox seen salaire. polygame est en est en guerre avec les autres séries. loolu euh, lan ngay wax si loolu. ah ma ne on est en guerre l' essentiel ñu ñoo ngi suñu rox dañuy def rek li ñu war a def kenn ku nekk mën a def leneen sénégalais yi am na lu bari lu ñu war a mën a bëgg. man gëm naa ne du polygame rek moo war a proposer au Sénégalais quelque chose vraiment bu ñu mën a accepter gëm naa ne y a d'autres maisons de production yoo xam te def ay affaires yu important yoo xam te ni ça intéresse aussi les Sénégalais mais ñun on dans notre coin on a notre spécialité et voilà ñu ngi koy dérouler. merci beaucoup merci beaucoup. alors Kaaw ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay sister. alors Kaaw lan nga ñu mën a wax après li nga xamante ne mooy spectacle bi ngeen def tey. waaw mbégte rek ginnaaw nit ñi bég nañu. ñun du ñu def lu dul bég. Mhm. lii lañ doon xalaat. Mm, ay ay ay weer. di ko xalaat tey ba bis bi ñëw euh, alhamdulilah nag bi ñu bi ñu satisfaire public bi ndax tey bi ñu génnee ñëpp ñu ngi applaudir ci li ñuy def euh, rawatina nag aussi tamit daje ak fans yi waaw tête à gisante ak ñoom ndax ñuy séen rek ñuy def ñuy bëgg tey nag bu fekkee rencontre am na ça nous fait plaisir franchement neex nañu trop ci bisu tey bi waaw mbégte bi ma am daal mm, am na départ mais amul arrivé quoi. alors kon comme ni nga ko waxee après li nga xamante ne mooy euh, li ngeen def tey ji euh, tey fan la ñu mën a xaaraat polygame. waaw ci kanam rek. ci kanam rek ak yeneen i surprise aussi. waaw parce que tey damay damay saluer aussi ñi nga xamante ne nii tey ñooy euh, waa MAP ak ñi nga xamante ne nii tey jii mooy kebe Samba Diaw et cetera ñi nga xamante ne ñoo liggéey affaire bi ba mu egsi parce que ñun ay complément la ñu ñun dañoo ñëw rek actionné mu ngi mel ni tey kila jox plan de guerre moom moo def moom moo gagné guerre bi. waaw ñun li ñu def lu exécuter rek la ñu am mais plan de guerre bi ki ko def ñoom la ñoom ñoo jàpp ci affaire bi ba affaire bi egsi fii polygame moom séntu leen ko feneen day romb foofu. alors ngeen choisir li nga xamante ne mooy ngénte bi def ko théâtre sur seen lan moo waral choix boobu. waaw xam nga àdduna toujours innovation dafiy faral di am. Euh, gis nañu tey def nañu presque ay sept cent et quelques épisodes euh, yoo xamante ne ni polygame mi ngi koy def ci diirub euh, diiran bi mu tàmbalee ba léegi ñu gis ne dem nañu ba agsi tey ci ngénte ni ñëpp di ko xaar xel yëpp bokk daje ne et pourquoi pas ngénte li ñu woo fans yëpp ñu ñëw ñu toog def ko live parce que lii lañ leen waroon jox ci li nga xamante ne nii tey mooy ci seen YouTube bi li ñuy seetaan ci petit écran bi mais moom la ñu jàkkaarloo ak ñoom jox leen ko live mm-hmm. yëg-yëgam ci bis bi talent bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko sa jëm. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuy bu baax a yéen di leen ziar di nuyu Sénégal gi yëpp di ñaan jàmm ci réew mi. Euh, te la tey moom bis bi dafa ala daw mi parce que dañu kontaan parce que li nga xamante ni dañ ko liggéey après ñëw nag wane ko ba pare nga gis ni ñëpp dañoo nekk ci euh, ci lancé boo xamante ni ku ci nekk rek dafa am xolam lay liggéeyee donc loolu euh, mbégte la quoi que nga jàpp benn affaire baaxul sax nga gis kenn ku ci nekk jàpp ci loolu loolu mbégte la pour man waaw moo tax tey bis bi moom dañ koy dundu naa ko jëlee waaw loolu moom waaw xam nga tig la rek benn affaire bu ndaw la day ñëw après demaat waaw xam nga loolu ku nekk day am cas man peut loolu mooy sama cas waaw ci voie bi donc bu ma nit woowee sax daf may wax naa ko waxal mais loolu mooy affaire bi daal sarmu bi la. mais fan nga ko xoolee ba di ko def da nga ko def genre fan la jógee. non daf ma dikkal ci benn film bu ma doon def daan naa ko def nag ay jamono boobu maa ngi door a débuté mais ci benn film maa ngi ci jël voix bi jékki-jékki après changé ko mu neex ñu continuer ko quoi. mu ngi noonu ci dérapage quoi. ñu gis la ñu gis la aussi nga jël benn déguisement bu xaw a particulier si li nga xamante ne mooy euh, série bi lan moo waral déguisement boobu ak inspiration boobu fan la la jógee. waaw boo xoolee euh, déguisement bi xam nga donc damay wax ni film yi ñoom ñoo ñuy sol loolu ne donc dañu ñëw. Euh, ma ma soloon lu correct ñu jël loolu tegal ma ko ci xam naa peut-être ah, loolu mooy sarmu li nga xamante ni moom lañ ma jox léegi nag mu topp ma ba léegi mënut a dañ donc manteau rek laay laal teg ci sama mbaxana daal di falaale mu ngi noonu. alors lan moo nekk instant bi yëg-yëg bi après li nga xamante ne mooy euh, spectacle bu mag bi ngeen xamante ne def ngeen ko fan si wuy si leen Sénégal ñëpp wuy si leen. waaw contentement bu rëy rëy parce que tey euh, ñuy liggéey nekk cees di liggéey jékki-jékki euh, liggéey bi kawe léegi dem ba ci biir mu jur Ndeye Ndiaye dañ ko war a ñu déplacé ngénte Ndeye Ndiaye andi ko Grand Théâtre donc loolu mën naa ni si innovation la lu yaatu la quoi parce que tey mënoon nañu def ngénte ut ay baas donc buñ ñëwee dañu ñëw Grand Théâtre pour man loolu euh, maanaam leneen la quoi parce que tey ku ci nekk da ñaan ngénte ñu defal la ko ci lieu boo xamante ni fa la ñëpp bëgg dem donc ñu ni dañuy ngénte Ndeye Ndiaye xel yëpp ni nañ ko yóbbu Grand Théâtre man loolu mbég ci laa ci am vraiment waaw alors Tonton lay nuyu. waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ziar bu wér wér. ñu ngi lay delloo ziar tey ñu fekk la ci euh, spectacle bu mag bi nga xamante ne waa Polygame euh, daal dinañu koy organiser tey lam nga ñu mën a wax ci bës bi ak sa teewaay si bés bi. waaw sama teewaay du dul leen du dul dëkk Thiès. dokk doomu Thiès. waa Thiès xewle. il fallait que ma ñëw def sama participation ànd ak ak ñoom wax dëgg yàlla loolu rek moo ma indi vraiment nga ñu mën a wax ci série bi nga xamante mooy polygame. waaw polygame maanaam série bi ma si wax maanaam mooy série bu am sens la. série bu yeete la. série buy defar la série buy dimbali askanu Sénégal la wax dëgg yàlla nekk na série bu am importance wax dëgg yàlla waaw. dëgg la tey ñu gis na na nga yëg ci kaw seen bi daal di dem dem yu neex. waaw c'est normal parce que doomu cees la il faut ma def noonu wala ni Thiès moo xewle wane sama mbëgte waaw. nga ànd koog Dame Sène waaw Dame waaw si parce que doomu Thiès ñu ñaar ànd ñëw taal sunu oto ñëw ànd ñëw war kaa ànd ak waa Thiès parce que ñu ñëpp ay doomu cees lan daal waa dëgg yàlla waaw. mën nañ la laaj nag lan nga nekk lan mooy say projet yaa ngi ci lan. waaw projet yi ma nekk bari na loolu macha allah maa ngi ciy sant yàlla parce que maa ngi ku ci mel ni Kéemaan Vision te sëñ Modou Kéemaan moom ko du liggéey ak télé Pape Doumbouya ak waa Soleil Levant ak ñeneen ak ñeneen maa ngi liggéey ak ñoom wax dëgg yàlla waaw. kon mën nañ la xaar si yenn série yi nga xamante ne ñu ngi daw jamono ji. waaw incha allah bu soobee yàlla sunu borom di ngeen ma si gis lu yàggul dara incha allah maa ngi ciy sant yàlla wér